asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah le 19 mars 2020 ñu ñëw ak yéen ci yëglekaay yi mu yëglekaay bi nga xam ne nag moo di sunu làmb yëglekaay ba nag tey daa xëy samp ab laaj am ñu mu ca laaj maam lees kot su ca parcelle mbooloo zalba di ab entraîneur di ab menace ca Pikine Max Mbargane yore lamsaar mu mel ni ki nag laaj ba ñu xëy samp mooy booy Niang mi nga xam ne daal bëtam yépp da koo jël baraake ko maanaam daal janoo ak Balla Gaye jàkk na force day bëre ak moom loolu mooy laaj bi moo tax nag ñu laaj leen maam lees moom nan lim ci gis moom daa mel ni wàllum xaalis daal bokk na ca li nga xam ne moo gën a motivé ki nga xam ne nii moo di Boy ñang ka nga xam ne nii moo di zaal ba tamit nee na li leer ba leer moom la mu gis ci loolu daal mooy Boy Niang xëy na palmarèsam daal la gën a bëgg a defar boog Père Max Mbargane moom nee na Boy Niang wane na xëy na lu tax mu mel ni koon daal foofa itam mbir ma mu nga fa ci diggante Balla ak Boy Niang waaye bu nu continuer moom keneen koo xam ne ni moom bu Balla bu ko kenn dee dëkk moom kii moom ñett a ko jàpp di ko dëkk muy Moodu Anta lañ noon nag bul jaayati jar nga daa mel ni Moodu moom fi mu nekk nii lambul ci làmb ji la tigre da Thiès noonu lañ koy waxe mu mel ni ki Moodu Anta nag moom jàppal kii nga xam ne nii moo di jën kayre ama neex kuwens ku nekk daal yaa ngi koy wër wagaaj bëgg a daje ak moom ndax nag fi mu nekk nii ñetti mbër yooyu yëpp koo ci laaj danaan la ki ma teree nelaw kenn la muy Modou Anta bu Cees keneen koo xam ne nii moom ka ko teree nelaw ba ñu boole leen muy Gris moo di Abdou Diouf Gris nag nee na Abdou Diouf na xam ne day man dansé laa ci kawam coronavirus sax maa ko raw ci kaw Abdou Diouf te bés bu nu jàkkaarloo dana ko xam ndax damay dox ci kawam duma ko daan ko dem sama aw yoon loolu may waxi Gris 2 tey ci yëglikaay bii nga xam ne moo di sunu làmb ñu fa xëy nag séq fa ak moom waxtaan wu yaatoo yaatu mu ngardaaju yëglikaay ba wax fa lu baree baree bari moom Gris keneen koo xam ne nii moom xëy na wax ci yëglikaay ba moom gis-gis ba nga xam ne nii mooy tournoi roi des arènes ba ñuy wax daal te mu génne woon ci docteur Alioune Sarr mi jiite lamb ji moom la àndul muy garga mboose garga daal daa jàpp ne loolu moom boobu idée moom gisu ko moom la mu gën a gis daal waa xanaa boog ay poids lourd ak ko àll sa daal ñu booloo bëre wala ku nekk ñu tas la nga aw fenn bëre waaye moom tournoi ab roi des arènes moom garga daal àndut te la tey suba waxi noppi yëglekaay bi xëy ñëw tey dina ko wax leneen loo xam ne nii moom doy na waar ba jaaxal ñu muy corona bi daa mel ni nag daal la nga xam ne nii moom lay def fi mu nekk nii pour ma promoteur wax nañ ca ku mel ni Baba Diaw moo waroon a tëgg nag sam dimanche ja passé mu mel ni ki moom de nee na moom la ma gis daal donte dugaloon na xaalisam ak léppam waaye nag nee na la avant tout balaa ñuy tal waxi làmb moom. dana xanaa kay ñu wér ba pare Assane Ndiaye itam feelu ko dana fi mu nekk nii daal li leer ba leer moom liñ balaa ñu fay wax ay waxi galaa kii làmb moom dañuy bàyyi ba temps bi normal maanaam daal bu bés ba jotee ba lii jeex kuy wax waxi làmb ak la ca des nga door koo wax loolu waxi ki nga xam ne moo di njiital bool production moo ko jiite Thiam production ñoo xëy tey waxe noonu ci yëglekaay bi nga xam ne moo di sunu làmb mu mel ni ki nag xëccoo dox ci diggante waa CNC bi ak ñi nga xam ne moo di arbitre ya moom daa mel ni andi na ab xàjjaloo ca biir ña nga xam ne ñoo yore wàllum règlement ak discipline ñii bu ñu àndee ca dogal ya ña ca des moom daa mel ni arbitre ya la ñu bokkalug làng far ak ñoom yëglekaay bi moo xëy ñëw tey wax nu ko keneen koo xam ne nii moom moo du anta numéro de la tudde boppam dëkk ca Thiès tey dund ca Brésil daa mel ni nag moom dugg na ca MMA ba de ba am ca këlëbam Brésil war caa def ay compétition yu rëy a rëy mu mel ni ki nag xëy na wan ñu ko ci aw photo waaye yëglikaay bi itam xëy na def ab taxaw seetlu fa nga xam ne mooy cekri ba nga xam ne mooy fallaay Balde wan ñu fa ay xale ku mel ni ki Boysil Jacob Balde ak yeneen xale yoo xam ne daal ñu nga fa ca seenub taxawaay ci lii nga xam ne moo di làmb ji mu mel ni ki nag li nga xam ne nii moo di làmb ji ministre Matar Ba ginnaaw ba mu dalalee ñoom Pa Abdou Fall yëglikaay bi ñëw ci ñu andil ko li nga xam ne ni daal mooy lu jëm ci wàllub li ñuy raxas ay loxo ngir corona bi yëglikaay bi xëy na wane ko mu mel ni ki nag ka nga xam ne nii moo di Fallou Faye ak Ndeye Ndiaye Tyson ñoo doon coordonné loola ba jënd gel ya andil ko ministère ba def seen participation yëglikaay bi xëy na tey wan ñu leen ñu ànd ak ka nga xam ne moo di Matar Ba waaye ba mu ca pare daa mel ni tamit les promoteurs authentiques ba ka nga xam ne moom la jëy jiite tamit ministère ba dafa leen di dalal tey ci mbir yu jëme ni kii lu mel ni kii noonu ak rapportu lamb ji Abdoulaye Ndiaye moo xëy xam ne moo di sunu làmb mu mel ni kii daal kon fi mu nekk nii xeex ba ñëpp ca nar a nee nañ ñoo xam ne nii moom soobu nañ ca xeex ba muy footballeur ya ak ñëpp mbëri làmb ya tamit di VIP ya sóobu nañ ca muy ñoom Balla Gaye ak ñoom Bombardier ndax yëgle kaay bi ne kere dégg nañ leen ca fa nga xam ne moo di lay di tigir bu Bécaye Mbaye ca TFM ñuy sensibiliser sénégalais yi waaye nag yëgle kaay bi ne liy des ci ñoom nag ñoom VIP yi mooy loxo ci poos poos daal la ñu dugalagul seen i loxo génne weccet teg ci taabal ji donte wax na ko mel ni ki ñoom Youssou Ndour ak ay Wally Seck ak i Papa Diouf daal daa mel ni ñoom nag muy Bombardier oo Balla Gaye moo Modou Lo Gris Bordeaux wala muy Eumeu Sène mbër yu mag yaa mag daal daa mel ni fi mu nekk nii ba ca Lac de Guiers daal laala gu ñu poos génne weccet kon nag mu mel ni kon daal xanaa loolu ab soñña la ni ko yëglikaay bi waxe daa mel ni kon corona bi fi mu nekk nii day yàgg maar loo ci mën a dégg na ko ñëpp xeex fexe mu jóge fi waaye li ma jaaxal ay sa fay mi dëkke na magam laa xaritam tey mu loolu du am ndax lan rakkam waaye siga yàlla na sa jàmm yàgg xanaa man maa la bëgg ndax sama maam lañ la tuddee loolu moom maa ko wax te meer sugu danaa ko nuyu par force. salaamaaleykum mbokk yi suivre Leewtoo TV ñu leen nuyu bu baax di leen ziar di leen jaajëfal comme ni ñu koy defee chaque jour dañuy ñëw ak yéen ci revue de l'arène bi ñëw ci jàngat bi ginnaaw bi nga xam ne Babacar def na li nga xam ne mooy revue de presse bi Babacar nuyu naa la. maa ngi lay fay tey de da wàññi nuyoo bi. danga daan wax Babacar sama mag sama xarit xuma tey lu tax nga wàññi ko ay sa maa lay fay eh. waaw te Babacar daa jóg euh, pour tendance ma waaye duma ko topp si tendance googu noonu <laughs> ah, dañuy daal di dugg si li nga xam ne nii mooy euh, waxtaan bi ñëw ci li nga xam ne moom la suñu lamb mu indi tey muy euh, diggante Balla Gaye ak Boy Niang booba léegi coow li bëri na suñu lamb nee na lan moo tax ki nga xam ne ni mooy doomu dogal bi daal jël bëtam teg ko ci ki nga xam ne ni mooy Balla Gaye ñi daal di ñëw nag ku nekk andi ci sa xalaat ku ci mel ni Mame Less ku ci mel ni ba ak ku ci mel ni ki nga xam ne mooy Max Mbargane daal di si ñëw indi seen euh, tontu. waa li am solo daal mooy loolu moom defe naa yàgg na si làmb mbër mu ndaw yàgg naa soxla mbër mu mag pour bëgg a bëri ak moom Boy Niang xëy na foofu la toll digganteem ak Balla Gaye ba tax tey. mu jël ay bëtam samp ko ci moom yaakaar ni mooy adversaire bi mu war a bëreel donte que nag dama naan du Balla kese la war a bëreel ndax digganteem ak Tapha Tine làmb mënu koo dàq yaa ngi dégg ak yeneen combat yoo xam ne ni war na ko mën a bëri moo Gris Bordeaux waaye bu ñëwee si Balla mi ñu wax lenn rek moo mën a nekk ah parce que en tant que ah, sportif de haut niveau tey yaakaar naa ne bëri ak Balla gay de yokku la ci moom mm-hmm. ci côté xaalis yokku la ci moom ci côté palmarès yokku ci moom ndax bu daanee Balla Gaye def exploit te xëy na bu ko Boy Niang bu ko Balla daanee dina bëri ñoo xam ne dañ naan du ñu bett kon yaakaar naa ne pour mu def nag benn exploit ci làmb wala mu kii il faut mu jéem seet koo xam ne dañ naan bu ko daanee ñu ne est-ce naa ne loolu yaakaar naa bokk na ci li ko xam ne moo koy motiver ba muy taxaw que ni jàpp ni moom ak kii làmb daf leen a boole et tamit loolu mooy loolu mooy làmba ah, toujours da ngay xool ki xam ne jàpp nga ne na la nga jéem a affronté wu ak moom pour a jàll parce que gis nañ mbër yu bari jaar nañ ci bi ñu ñëwee Balla Gaye de jaar na ci ku ne gis na diggante mag Yékini ñëpp dañ noon Balla day xaru mm-hmm. waaye fan lañ mujje gis nga jël ba mu ko daan yaa ngi dégg gis nañ ko ci yeneen komba gis nañ ko ci Modou Lo ku ci ne ba ngay bëree am na po bés yoo xam ne ni ba nga koy bëree dañ naan kii est-ce que dina ci génn mu génne ci Eumeu Sène ak Bombardier ji la fois passée gis nañ ko fi loolu nag noonu lay sport di doxe quoi waaw Babacar dañuy jógee ci combat boobu noonu daal di seet ki nga xam ne ni mooy Gris moom mi war a bëre ak Abdou Diouf daal di ñëw daal di ñëw ci combat bi wax ni dëggal boppam tamit parce que nee na buy dajeek ki nga xam ne ni mooy Abdou Diouf dina ko wan ni danger la ci moom dina dox ci kawam duma ko daan ko. wax loolu la wax de nee na daal moom danger la ci kaw Abdou Diouf ndax day dox ci kawam duma daan wax yu bonte galgal nag ubbu làmb mm-hmm. dañuy ñaan yàlla bés ba jot. waaw lamb ju neex la nag ñu nuy promoteur bu ko tëgg muy jéey seen ndaxte Abdou Diouf dafa bëri mbër yu mu daan faas boo xoolee benn defet la fa am su ma juumul am na fa sept victoire parce que bëri na ñu fa daan trop trop trop yaakaar naa ba ci magi sax Gris moom di Gris Bordeaux kon yaakaar naa menum forsa moo ko fa daan kon defe naa Gris 2 mu jéem a nekk ci kaw Abdou Diouf dansé xam naa ne mu wax koog mu ñàkk koo wax mooy li mu bëgg waaye ndax dina ko doon bu bés ba foofu la mbir ma ne ndax Abdou Diouf it bàyyiwul xale ak yàlla de mën naa bëre te mën naa xeex te itam am na expérience làmb kon dañuy ñaan yàlla rek yàlla nañ fi yàlla bàyyi ba bisu làmb ja Babacar euh, ñu yàlla ñu fi yàlla bàyyi ba ci làmb ja ñu dem euh, xool tamit ki nga xam ne mooy Assane Ndiaye di patron Bawol production ak ki nga xam ne nii mooy patron Thiam production ñoom ñi nga xam ne seen combat moo capoté woon euh, fan yi passé léegi nag ñoom ñu ne dañuy daal di toog rek parce que fu mu toll ni waxu wér-gu-yaram moo gën waxu ay combat ak xaalis bu ñu investi waaw loolu de mooy li am moom wax dëgg yàlla fu ñuy waxu wér-gu-yaram defe naa ne bu taxawee dañuy di jël xaalis tege ko nelete lijjanti wér gi ba pare wax ko yaakaar naa ne ay seen nañ ne que ñoom ay citoyen lañ ay sénégalais lañu te itam defe naa ne combat bii nii xëy na donte feebar bi duggul sa kër ñaanuñu yàlla mu dugg kër kenn mais itam bu duggee ci réew mi rek mën nañ dugg na suñu kër wala bu duggee sax si àddina bi kon defe naa kenn mucc ci actuellement li ñu war a def nag xanaa kay muslu tey moytu tey ñaan yàlla tamit en tant que ay jullit mais li leer ba leer daal mooy loolu ñu wax moom xel mën na koo nangu quoi waaw Euh, fu mu toll nii Babacar euh, ñëpp nekk ci li nga xam ne ni mooy xeex bi ak sensibilisation bi Babacar ba tax na ñi nga xam ne ñoo nekk ci arène bi tamit de suñu ginnaaw parce que gis nañu euh, promoteur yi ñoom daal di nañ doxandu dem seeti ki nga xam ne mooy ministre ministre des sports def seen contribution ci ay gel mu nekk nag ñoom Pape Abdou Fall ak ñoom Ndeye Ndiaye Taïsé nag ñooñu ñu annoncé tamit ñoom jéeg ñoom la xar war nañu dem tam si ministre bi yóbbu seen geste loolu la sunu laam wax parce que gis nañ leen ci sensibilisation bi ñeen ñi laajte nag kañ la dugal loxo si poche bi. waaw loolu daal am na solo li am solo daal mooy loolu Pape Abdou Fall def ak kuréelam ànd koog ñoom Fallou Faye ak Ndeye Ndiaye ak ñooñu. am na solo dem en tant que ay bailleur ay promoteurs yu doxal làmb problème bi am ñu génn seen xaalis nu mu tollu ak néew jënd ko matériel ñëw jox ko ministre sport Matar Ba yaakaar naa lool képp ku moo doon rek war nga ko mën a rafetlu yaa ngi dégg ndax man yàlla dogal na sax démb commune Taba Abdou Fall loolu jokkoo nañ ci vraiment muy lu rafet rafet ak commune Fallou Ndiaye ñoom jéy tamit defe naa ñoom tamit ci dëkk bi la ñu bokk te ay sénégalais lañ di ay promoteur tamit di promouvoir làmb yaakaar naa tamit ak seen kuréel tey muy les promoteurs authentiques ci kàddu Laat Ndiaye ministre bi war leen a dal ci lu mel noonu moo lay wan nekk Sénégal ñun ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk baay yaa ngi dégg naa ne bu dara jógee rek mu xam nga booy dégg sax xëy na yenn ñàkk déggoo kii daa fekk jàmm am mais sénégalais saa yu mboromam nekkee ci jafe-jafe dootul ne ci jàmm ak lu mën a xew kon nag moo tax dinañu gën a rafetal diggante yi rek loolu am na solo mbër yi tamit comme noonu ñu ko waxee ah, ñu ngi leen di xaar parce que tey yaakaar naa ne ñoom ay sénégalais lañu ay bokk nañ ci liy développé dëkk bi ndax mbër yu ci bare bari tey maanaam am nañu ci làmb may na leen loo xam ne tey ñu ngi ci yeneen business di développé leneen ci dëkk bi kon defe naa itam loolu ñu wax noonu message boobu dinañ ko dégg ba yaakaar naa dinañ génne la yor ak su néew dugal ko ci dem jàpp ci li nga xam ne ni mooy combat bi te defe naa loolu ñun ñi si wax si micro ku mu mën a doon tey même la nga yor bu ko xeeb daal 1000 francs baax na téeméer baax na xel mu rafet baax na mais lépp na nekk combat bi nekk benn wax bi mooy combattre pour que coronavirus bi jóge ci àddina bi mais rawatina Sénégal gii ñu ne mhm. waaw. Babacar dañuy jeexal ak ki nga xam ne ni mooy euh, Modou Anta suñu lamb dañu xamal ni fu mu toll nii bu dee am na ñu jar. ci làmb dëgg Modou Anta ci la bokk parce que tey ñi koy dëkk dafa bëri torop boo paasee Diène Kaïré gis nañ ko fii gis nañ euh, Quench dëkku na ko fi kii di ama neex mbër yu bëri bu teg seen bët ci ki nga xam ne ni mooy euh, Modou Anta bu jees waaw loolu moo lay wan ne kon moom maanaam mbër la ci làmb la bokk te itam am na cër bi parce que ama neex du n'importe quel mbër Diène Kaïré bokk na ci xale yi war a yéeg si làmb Quench waxi noppi kon yaakaar naa ne tey ñooñ bu ñu taxee ñoom ñett ñëpp ku ci ne da nga bëgg bëri na ci yoon wu la waxoon sànq ci booy Niang rek yaakaar naa ne tey Diène Kaïré mu doon te moo ko njëkk ci làmb moo ko njëkk takk ngemb yaa ngi dégg kon defe naa tey suñ doxee ba moom mu bëgg ko wala ki nga xam ne nii moom mooy Quench bëgg Modou Anta ndax Quench ci micro Leewtoo bii la moom pare na ngir ko Thiès fa ak moom kon kooka pare na am neexit noonu kon yaakaar naa ñoom ñeen ñooñ nag boo leen boolee sax pourquoi mënuñu leen a tas ku nekk bëri ak ndax yaakaar na Diène Kaïré ama neex war na mën a ne Modou Anta Quench war na mën a ne yaa ngi dégg parce que wala sax Diène Kaïré ak ak Quench suñu la relaat ko parce que seen bëre sénégalais yi bégguñu ci waaw bégguñu ci ca na mu dem parce que ñu ngi ca doon xaar combat bu technique bu am jëlli bu rëy mais gis nga fa mu mujje mais làmba ngi noonu kon mu doon ta daal daa mel ni kon jar moom def na ko bu baax a baax waaw kon Modou Anta combat bi si promoteur yi la des parce que adversaire yi ñàkkul bëri na fu mu toll nii Babacar comme adversaire moom si promoteur yi la des. waaw bien sûr waaw promoteur yi nag kon ñu ngi leen di ñaanal rek euh, ñu ñëw jéem a xool combat yi ndax combat yu neex a neex la vraiment mais actuellement fi mu nekk nii comme li ñu la wax rek corona bee tax lu baree baree bari gars yi xaw cee teggi seen tànk waaw. Euh, Babacar dañuy daal di tàggu ñi nga xam ne ni ñooy suivre Leewtoo TV di leen euh, jaajafal bu baax si ànd bi ñuy ànd ak ñun di leen ñaanal jàmm fu ñu mun ti nekk di ñaan yàlla musal leen muccal leen muccal ñu muccal euh, bépp doomu aadama ak fu mun ti nekk rek yàlla na yàlla yónnee jàmm teggil ñu feebar bi nga xam ne ni moo lëmbee si àddina may ñu gudd fan ak wér gu yaram di bëggee képp koo xam ne rek yaa ngi suivre Leewtoo TV muy mbokk di xarit di am di jàmm ak fu ñu munti nekk amin Aïssa ah amin yàlla na yàlla nangu ñaan yi barke yonent bi salaay salaam donte tendance bi am na mais xam naa du mën a ñàkk parce que Siga moom mënu ma koo bañ di tudd moom Siga Faye waaw Siri Babacar bu baax rak ko Aïssa caatu meer sugu di nuyu tamit seen kilifa seen kilifa kër Paate Paate Faye maa nuyu bu baax a baax di nuyu Nogoy Faye ah rak ko Aïssa ca itali ak boroom këram Amar Gueye Amar maa ngi lay bégg bu baax a baax sama soppe boobu di nuyu tamit sénégalais yi nekk à l'étranger parce que tey actuellement mën nañ ne ñu ngi dund coono mais di leen wax ne ñun tout le temps ñu ngi seen ginnaaw di leen fàttaliku di leen nemmeeku di leen ñaanal yàlla yal leen yàlla muccal ñi nekk fi tamit yàlla na ñu mujj parce que tamit xam nga daani doole gisoo nday gisoo bàyyi lu mel ni am ñu tëj la génnatoo doxeetoo vraiment lu métte métte loolu mel ne yàlla rek am kattan mais daal jàpp leen ne fu ngeen mën na ne ci àddina bi ñu ngi leen di soutenir mais Aïssa Faye di nuyu koo xam ne tamit kenn la ci man muy Saliou Khoule ndax xam nga li dafa am loo xam ne yombul nit ku siiw àddina yëpp xam la nga jël sa yére bi ngay sol yëkkati sa moroom mum nit jox ko ko ah defe naa loolu ku gëmul yàlla doo ko def te wóoluwoo ko te Saliou Khoule gis nga pile bii su ma ko solee ñu ne dafa rafet moom moo ma ko jox kon Saliou Khoule maa koy nuyu bu baax ba di ko ñaan yàlla wéral baat bi di nuyu ay doomu ndayam yépp ñoom Mamour Kanji ABC xam nga ñoom sekk ay pël ku ci nekk rek di nuyu tamit yaama di wax ne Saliou moom gor piir piir la boroom xol bu nice la yàlla na jàmm yàgg Sénégal ay sax.